voilà parce que fini est c'est une cité à grande envergure parce que depuis 2015 le le fini ñi commencé à être te biñ fiy toxusee ba léegi nii gisuñu fi benn benn benn benn engagement bo xamanteni ni tey plan de masse parce que tay ji boy ñeu di jënd dañ plan de masse C'est cité bi wone la day am espace vert am mosquée am église am voirie am réseau d'assainissement Nous ñëpp une ngeen image yi seen bopp lolou dara dara amu fi y a des gens yo ils se sont sacrifiés corps et âme ñëw investir vie pour jënd fi kër mais ñom ñu dund ci calvaire fi bu tawé bo duggé waxuma la mais kër yi si duggé yow sa day daw da ngay gis ndox mi du am benn benn benn sortie bo xamanteni mëna mëna kër yi non seulement étant des techniciens ñom war ñu waru ñoo mëna a ay kër di def ay déversoir yu ko ci cour sans pour autant ñu créer ay évacuateurs si c'est bo xam plus de 2500 logements amoureux réseau assainissement lo ça n'existe nulle part te regarde ici bu féké assainissement sax mais guñ ko mettre en place mais il y a des solutions à court terme Fini zone bu reuy on peut créer des bassins def ay drains drainer les eaux c'est pas difficile mais yàkkamtuwuñ bu période nawet ñu rek ñu jël sen suuf yi tasal ñu te suuf si ñuy jël c'est des sables dunaires ñom ñoy té ndox bi vraiment amul ben engagement fi amul lieu de culte amul espace vert boy gis nga fii nii moo nekk seen aire de jeu gis nga li ni pour ASC ASC li mooy sen aire de jeu xolal bu ndox mi bu tawé bu tawé dañuy obligé transformer ko sous forme de bassin mais li ñepp xam nañu même sur la santé humaine c'est pas bon il y a les moustiques là la prolifération des maladies ñi ñëpp dëkk fii xale yi di fi yeewoo fi ay xale yi di fi ñëpp moustiques yooyu yëpp mag ñee kenn wératul donc am na loo xamante ni man je pense que Telium ñoom du ñu boîte bu ndaw dañoo war a xam carrément que ni voilà fii ay responsable ñoo fi ñëw ut fi seen kër donc dafa am loo xamante ni c'est le minimum loo xamante ni ñoom dañ ko war mettre en place pour dire vrai ici les gens souffrent wa diaspora bi ñoo ñëw japp ci ñun aussi ñu ngi suñu bopp mais amuñu benn satisfaction je parle directement ah, avec Yérim Yérim il faut que aussi que voilà que vous fassiez des efforts nga ñëw fi nga wacc nga xol lu nous ñi di dund nga d'être en contact direct avec les habitants depuis que l'association l'a créée depuis je pense c'était depuis 2015, 2016, mais ñun musuñu mënuñu la wax Yérim saw ni la mel c'est pas normal yow boo ñëwee nga ñëw ñun ñi am confiance yow à travers ton papa nga xamante ni fu mu tabax cité lu ciment yi des lu béton yi des mu ngi foofu di tabax ay mosquée tout sax mais ñun loolu image boobu noonu nañ doon nañuy xaar si yow ngay ñëw fii jege nit ñi xam ni ay nit ñoo fi nekk ak ak yow nga ñëw jege leen wa wax ak ñun li ñuy sàkku méttiwul defaral ñu assainissement li nga diggal ñun nga def ko ñun loolu kese kese moo moo ñu ñor. donc il faut que nga ñëw nga population yi nga wax ak ñoom si côté euh, yenn aspect yi nga xamante ni état mën nañu see jàppale ñoom tamit ñu ngi leen di tendre la main parce que nous nous sommes des citoyens nous sommes des sénégalais voilà euh, on on a nos nos nos droits il faut que nous ñëw ñu aider ñu problème est nga vraiment ñu souffrir comme dans les autres localités.